yàlla sant gi ñuy sant yàlla mooy yàlla mi nu mayoon ñu tàmbalee ko ci bismillahi rahmaani rahim may nanu moom yàlla ci kàttanam ñu àggalee ko ci alhamdulillahi rabbil alamin kon dañuy sant yàlla d'abord ñaan yàlla borom bi subhaanahu wa taala lii ñu tàmbali yàlla na yàlla may ñu mottali suñu yéene macha allah alors euh, lii njëkk mooy ban yëgi lay def ci yow tey mbooloo mi fi teew macha allah bari na ci ay soppe ci ay am di jàmm ci say waajur ak témoignage yëpp di benn tamit jëmale ko ci oustaz Modou Fall jërëjëf congaan xanaa sant yàlla rek waaye fas yéene yokkaat góor góor góorgóorlu ndax am na loo xam ne su loo ko yàlla defalee dangay sant yàlla mais en même temps dafay nekk ñaax jëm ci yow Kébémer rek Dakar ñaari waxtu ak quelque la koo fi gis rek jàppal ni sa nit la parce que jamono bi mu amee xat na mhm. tàng na te ci nawet la nu nekk ku pëndal ay tànkam ñëw ba Kébémer ci sa bis bi nga amul lu dul moom man de Oustaz Modou Fall su ma fi jógee danaa la jàppaat beneen jàppin bu bees bis bii rek laa am mhm. ku ma ci gis rek place boo amoon ci sama biir xol gën naa yokk mhm. bu nekk bisu te ñun ñëpp ñu bég ci sant nag képp ku fi teew mhm. congaan nit ñi doo xam loo leen defal seen mbaax seen yëg-yëg seen yitte man de wax dëgg yàlla maa leen ameel àq mais ñoom ameeluñ ma àq mhm. ñi fi teew ñëpp yàlla yàlla fay leen macha allah alors euh, ñu bari tamit di laaj yaa oustaz daara Medinatu Rasul xëy na boo ko bëggoon a def ndakaaru ni mu yombee fii ci Kébémer dina ko yombee mais lu tax nga choisir indi ko fi nga xam mooy Kébémer ñaari cause moo ko waral cause bu njëkk bi mooy espace bi ngay bëgg fii nga ko mën a am ñaareel ba it dëkk boo fa juddoowee man Kébémer laa juddoo sama waajur moo ma nettali na ma bi nga juddoo ba am six mois ci la sa papa am kër dakaar ñu tuxu Dakar kon bu dee juróom benn weer laa fi defit tuxu dakaar fii laa juddoo bi ma amee yéene yi tabax daara nag muy sama première daara sama xel dem ci ni Kébémer nga juddoo delloo ko Kébémer ndax nit du fàtte cosaanam looloo waral ñu indi ko Kébémer espace bi nu fi bëggit fii lañ ko mën a am hmm. Dakar dafa xat tey mu yëngu subaa mu sedd te yar bi nga bëgg dëgg-dëgg pour man ci àll bii rek nga mën a ñëw hmm. fàkk fi lu la doy. kon environnement bi nga xam ne moom ngay soxla pour éducation soxla d' accord Kébémer rek nekk sama dëkk cosaan hmm. moo tax bi ma ko amee rek man fii laa jëm si d' accord très bien alors yow Oustaz mën nañu wax ni bi la Sénégal yi miinee ci penc mi ngay jàngale yàggul mais yitte bi nga am ba li nga njëkk def ci say objectif mooy samp lu mel ni institut islamique yitte boobu lu ko lu ko def ci Oustaz Modou Fall waaw mais xam nga réew boo ca nekkee hmm. ngay bokk ci réew mi suñ la ni woon loo defar réew mi hmm. nga mën cee duut baaram parce que yalla daf ñoo bindo ñuy nit ñoo xamni ñun ku ñu gis da nga japp ni da nga war jox koy nuyu da lay dara ko seti mu wacce bopum yëkëti la nit ñi dila defal teraanga waaw teraanga ji nit ñi di defal nga am foko mëna def liggéeyal ci yalla mais def ko fa so wote ku ñew fekk la fa ni ah sa topul rek adina hmm. def ko muy kër benen bi ci nit ku nek hmm. da nga wara fexé ba li ñepp am nga am ko am dëkkuwaay bu baax am oto bu baax nekk nit koo xam ne da ngay am ambition ni lii laa bëgg a def mhm. te li ma gëm mooy doomu daara lu ma gëm yàlla defal ko mhm. man loolu laa gëm boo mhm. tax ma ne bien vrai que ni budget bi metti na mais yàlla doo nga ko am koy tàmbali metti woon na man dama daan dem tournée Europe su ma ñibbisee tournée yi ma doon def damay am xaalis mais damay ñibbisi wecceeku ko CFA woo maçon bi ni ko ñaata laa la yoreel mu ne ma nangam nga war a jënd ci ay ciment ma dem jënd tonu ciment yu bari jënd fer bu bari fay ko moom su ma amee leneen lu may liggéey lu dugal ko ci nga xam ne bu ma ñibbisee une semaine damay toog du ma yor dara TFM mhm. ñaata yoon laa jël sama salaire direct ci banque bi dugal ko ci sànc bi mhm. parce que li ma bëgg mhm. duma ci xaar nit ñi dama ci jiitu man miiraas sama bopp ba mu sotti d'accord parce que xam naa ne li fekk yàllaa ngi may xel. dina may kàttan dina may wér ci mbaaxam suñu góorgóorlu rek am teraanga. kon contrairement ak li ñu bari di xalaat ni xëy na daara ji Oustaz Modou Fall yi ci beeg yéen a ji la am waaye karne d'adresse am moo ko tabax kon dafa mel ni euh, loolu aussi du du du nekk loo xam ne looy dëggal la. xam <laughs> nga nit ñi moom. waaw di wax de. <laughs> xam ki fi gën a tabe gën a tabe laa la wax de. du la may lu romb dix millions wala cinq daara ji du budget cinq du budget cinq millions du budget dix millions moo tax dañ ciy jiitu ñi nu ci fekk nag sant nañ leen ñoom ñëpp mhm. parce que am na koo xam ne du dimbali ku dul ki tegu ci yoon bëgg a làmb ji liñ naan bu ma buñ ma fayee kase ma bëri mhm. damaa demoon ba buñ ma fayee kase bu baaxul sax ma dem nga ko mhm. dóor ko ñëwaat taf taf d'accord mais loolu lépp tey coono boo ci mën a am bu yeggee ba lii am rek da amaat beneen mbégte da ngay xam ne jar na ko d'accord parce que lu metti woon rek passé na d'accord ci côté politique sociale lan nañ si mën a jàngee xam nga ni yàgg nañ wax ni modernisation des daara état bi ni war na jëkk jël ay matukaay ba nga xamee ni xëy na yalwaan ngeeg yooyu dinañ ko ci dindi te nga indi daara boo xam ne daara internat la du kon dafay wane ne rek il est temps aussi ñu xaw a doxalin daara yi def ay daara interne nag état bi aussi di si jàpp waaw mais xam nga internat moom hmm. man ci laa génnee su ma génnee woon ci daara yelwaan damay ubbi daara yelwaan mais daara internat laa génnee hmm. ci internat laa ma a jàngee ba mokkal alxuraan hmm. su may ubbi mënumaa ubbi lu dul internat parce que ci internat laa génnee loolu moo sabab ñu wut daara internat ni nga ko waxee hmm. état dafa war a jàppale daara yi dëgg la parce que ni muy jàppale école yi noonu la war a jàppale daara yi man nag malheureusement bi may ubbi sama daara wax dëgg yàlla am naa sansu toog ak jiitu mi expliquer ko sama projet ni ko nangam ak nangam ak nangam la bëgg. Hmm. ni ko projet bi nak bima défé budget nangam a koy tabax. munumaa jox lépp munumaa jox xaj bi munumaa jox xaj xajaat bi waye lam ma jox reyna ci man ta doylo naa ko. Hmm. ndax geste bi. ma tambali hmm. ma tambalé ñeneen ñu melni ñom ci duggal sen loxo. kan say da ngay dajeeg nit ci mbéd mi sax. mu yëkëti ñaat téméram arrêté la nga taxaw sa auto mu jox la 2000 wala mu jox la cinq mille ne la maa war a def ci daara ji mais xaalis boobu dafay bari ci yow dafay neex ci xol mhm. parce que da xam ne ki la ko jox leer na ma ne lii rek la yor mais yéene bi moo dàq ay milliards mhm. loolu moo waral mhm. ñu nekk ci ba yàlla sottal ko macha allah alors yow Oustaz man sonn fu nekk nit ak may woowee sa waa ji daaraam ji nan laa def ba xale yi dem fa nan lay demee wak yu demee noonu par occasion aussi loolu du ñàkk nga am loo ci leer am 77 726 23 23 ku bëgg sa doom ñëw ci ngay wone mooy numéro daara ji mais nak à partir le 10 mmh. septembre mmh. ci lañuy commencé jël mmh. le 10 septembre parce que xam nga ni ubbi nañ daara ji tay inauguré nañ ko mais magal Tuubaa gaa nga ñëw te ku ne xam na ni ñun TFM dañuy téla dem def suñuy plateau semaine prochaine ñu commencé dem di enregistrer légui bëgguma man nit ñëw di indi doom du fekk ma la jox ko diwa batale ko diwa dama bëgg kuy indi sa doom xam ci loxo yi nga koy teg gisanteeg man ma wax la condition wu daara ji bu la doyee nga bàyyi fi bu la doyul nga àndaat ak moom ñibbi mm-hmm. parce que doom du objet bu ñuy dénkaane ay batale naa la diw da koy teg ci loxo yu wóor mm-hmm. ñu wax la lu wóor ba ëllëg lu mën a xew nga ni oustaz Modou Fall laa joxoon sama doom tout à mm-hmm. te comme diggante bi bari na ay programme mu wóor ma ni mënumaa toog benn place naa bàyyi ba màggal gi jàll ma toog gérer ko incha allah. très bien alors ñu bëri rafetlu jëf ji ndax rëy na ci diinu l'islam mais ñeneen ñi ñu ngi naan yaa oustaz ndax inauguré daara rek jaroon na publicité bi fem rajo yeeg télé yi fu nekk di ko wax c' est vrai que yóbbante la boo xam ne du ñàkk certains commentaires aussi ñu ngi koy parce que daa bëri ñu ni yàq naan oustaz bu amul daara. am naa daara. Hmm. ay mbedd mi TV ba ñëpp laa yem. wa wax ju bëri TV am na site ñëw nañ. wax ju bëri TV c'est clair Mbaye mii nga xam ne ruube rek la mën mm. invité naa ko congaan yàgg ngaa dégg ñu naan ay oustaz yoo xam ne amuñu daara parati oustaz yu am gaa yi ñuy contre ñun yooyu lañ ñuy dóor léegi nañu wut beneen am naa daara man loolu moo tax ma publicité ko pour ñëpp yëg ko. <laughs> ku ko yëgul woon yëgal leen ko. d' mais euh, daara moderne yi xew léegi ban taxawaay la war a mën a am ci éducation islamique wala éducation de base bi nga xam ne ñu bari dañ jàpp ni dafa sooxe récemment gis nañu ay nit ñuy génn sax di ŋàññ ay kilifa diine euh, ku ci mel ni euh, Serigne Bass Abdou Khadre ñu ngi ñaan mu yàgg fi te coow li ko toppoon entre guillemets ci réseaux sociaux yi jamono ji gisoon nga ko kilifa diine yi ñuy ŋàññ de façon générale ci médias sociaux lan nga ni moom lañ ci war a am comme taxawaay. kilifa diine yi dañoo am loo xam ne boo ko bëggee foog nga góorgóorlu. Hmm. pour am ko toog di xaste mën la ko may. sëñ Bass Abdou Khadir yàlla def na ko ni mu ko def ba pare. Hmm. su la neexee def na ko bu la naqaree def na ko. toog nag naan yàlla du buur tubaab yi sax dañ koy wax naan jë n'existe pas mais yow xam nga ni yàlla am na kon loolu yàgg na fi toog di critiquer sëñ Bass amul benn njëriñ sëñ Bass raw na la fii te da lay raw fële. Hmm. parce que surtout Serigne Touba la jàng alquran ba ba jàng jotee mhm. di naafila kaamil ci weeru koor magul ci yoonu murit ñu dénk ko kàddu yoonu murit mhm. mu neex la Serigne Touba la mu naqari la Serigne Touba la olof léegul ni la ca maam sët a koy jël mhm. la mais Sénégal ñoo war a bàyyi meree la ci beneen affaire rek. Hmm. continuer chaque jour ñu meree la ci loolu. Hmm. Sénégal même boo nekkee imam di jiite ci jàkka ji am na partie yoo xam ne boo leen faralee am na am na ñu dul julli seeti parce que dañ naan kii parti bii la bokk. Hmm. kon donc dañ lay mere ci beneen affaire cause boobu nag mooy continuer ci lépp doo nekk seen imam duñ la gëm duñ la bëgg doo nekk seen sëriñ moo waral ngay dégg ci internet bi am ñu naan murid laa woon mais bàyyi ta jamono ji ñuy ci la safar gi di waja tambali jamono ji nan naan bàyyi naa ci la magal gi di waja ñew lo loo jange day ko ci mbartal la yoonu murid hmm. bo tege sa loxo day dem bo tegul sa loxo day dem polémique beek ciow leeg wax ju bari ji jaru hmm. suñ Cheikh neena nit bu xey farata moy wuti dépense hmm. na ku ne wuti dépense jéem a dund sa dund rek. mais responsabilité bi ñuy wax ni ñoom dañ ko war a jël de façon générale si sociale vie sociale bi te dafa des ñenn ci kilifa diina yi loolu lan nga ci lan nga ciy leeral. parce que liñ bëgg kilifa yi wax ko kilifa yi duñ ko wax tolluwuñ ci jamonoy taalibe toog bëgg lim bëgg moom kilifa bi wax ko. Hmm. boo nee diw laa yaakaar moom laa dénk sama bopp pour mu jàllale ma ca yàlla moom laa bëgg mu orienté ma sama diggante ak sama borom. Hmm. yow doto am tanef mom ngay bayyi mu tanal la ne Seydil Hadji hajj loolu lolou bind daf ne ande ak sa serigne bi nga ni mom nga yakar mhm. ngeen di dox ci leundum mhm. bu mom nga yakar jitul orienté ko ngir mom mu baña loru ba man la baña a ci yalla léegi am sa sëriñ di commandé voilà sëriñ si nangam nangam mënoo ci ñoom dara da ngay wax ba mar mhm. fii ku ba sëriñ du fi am mbaa nga coow ba màggal gi fomm wax naa la barki démb plein corona lañ màggal te boobu dañ ñëwoon mhm. ñun ñii kenn conférence yu ci toog di bëgg dee ñu naan ustaas yi loru nañoo amaguñ njàng ak nangam ak nangam lu la ñuy wax ni takk conférence yi takk loo ñu ay mask ñëpp takk waa Tuubaa leen ñun dañuy màggal bi màggal gi jàllee bu gars yi dañ doon déglu un million màggal gi jeex ñu ne zéro am na loo xam ne boo dogoon yàlla jàppale la ci. ñu hmm. ngi noonu. ah Oustaz ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. man sama moderne àggul foofu de ay connecté wu. Hmm. ay xale yi dañu war di ndekki chocopin ay yëfi dof yooyu. ay terrain basket ak terrain ay dañu war di entraîner ay kudd lañu war yëfi dof yooyu man néewuma ci. jàpp loolu jamono moo tax. non xale buy jàng alxuraan. Hmm. ci yoon téléphone sax waru koo téye. déedéet alxuraan doo ko booleeg dara. da ngay concentré wu bu fekkee dang ko bëgg mokal jang ñu orienté la mu jeex. Mhm. parce que mëno di jang di ak sa yaay fo toll. mëno di jang di connecté wu tay TikTok suba Instagram gannaaw suba Snapchat. andul mhm. mais xana compo yi rek bo bëggé téléphone do do admet. Mhm. déggoo ñu naan day jang dina nangul sa téléphone bi day examen da wàññi téléphone bi. téle teud mais tubab di nga bëgg jaasé ci mom sax dang koy jox yoon ba boy jang dañ la naan. boo amee euh, BFM naa la jëndal téléphone mm. boo atmee dinaa la defal lii parce que dañoo bëgg nga concentré wu waaw boo ko mënee def ci tubaab bi sàkkantuma la ak njàngum daara moo tax ma ne leen man sama daara amul connecté wu mm-hmm. amul toog bam neex la naan laay laa bëggoon a seet si wala mu non non la am weer wu nekk benn sam ak dimanche mm-hmm. diggante huit heures ba dix neuf heures heure boo fi ñëwee gis sa doom benn yoon mm-hmm. boo ko xasee bet teg bët janvier février nga koy gisal kon da ngay calculer yow douze douze fois ngay gis. sa doom gis sa doom par an ci at bi fois. Mhm. du ko weesu. te loolu dafa bokk ci lii dimbali xale bi. mais mooy tax mu concentré wu. Mhm. mooy tax mu jàng beneen bi ci des daara ji amul ay sol yëre amul sol ay kii tëni la ñuy sol. ay tëni ah parce que nekkul daara joo xam dangay ngay ñëw naan ba kii bi fi Espagne laa ko jëndee jiin bii non non tëni tëni ngay sol. Mhm. jàng nelaw. jaamu yàlla. d'accord alors euh, ba tey euh, bu ñu ñëwaatee si question yi wala si laaj. te yàlla dénk na ko pouvoir bam ni da koy delloo na dawal yërmande ci ñi fi nekk rek bañ leen a topp xam ne moom yàlla yëkkati na ko ba pare. defal na ko lu mu dootul defal kenn. Hmm. yóbbu na Sénégal foo xam ne kenn dootu ko fa yóbbu. cër yi daje ci moom. Hmm. na sante yàlla jaami yàlla yi fi nekk ak opposition beeg politiciens yeeg ñëpp mu dawal ci ñoom yërmande. bañ leen a topp nag ci dara téye naa pouvoir bi mhm. maa ngi dem kii tooñoon na ma dama koo naroon a tëj mais baal naa ko kii tooñ na ma tëj naa ko ba pare baal naa ko mhm. hmm? parce que lan lañ wax jara irona tum ha bi jaahi muhammadin mhm. dañuy wax ni ëllëg yowmal xiyaam yonent bi moo ñuy tënul suñu bàkkaar yi kon intervention yàgg na fi ci ndax yonent bi dañuy ñaanal intervention ëllëg intervention moy lo naroon amé problème ñu dëgg ci suñu tank mom tam na xol ci lool rek. kon xana message bi dafa jëm ci Ousmane Sonko mom nga bëgg ñaanal intervention wala. Ousmane Sonko dong la tej tej na ñeneen ñu dul Ousmane Sonko. ci ñim tej ñep hmm. mën nga konté fukki nit ñoo xamné tay hmm. ci nguuram lañ leen tejé d'accord même bu défé naka sudul nonu mom mo tollu fo xamné moy balé mooy hmm. na leen bal bañ leen top d'accord. ينتبه وليس خير الورى يجزي بسيئة يعفو ويسفع صفحا عن مسيئهم سيدي حاج مالك نانا ينتبه داول بالي تون ينكو تون يول ينكو تون تامو مت مو مانا فاي يوي لاي بالي ام يونت مو بن كوي تون با صحابه سين خول جوب ني بوغ رياجير يونت بي نانا تون يو مت يوي الحاج مالك نانا مو يونت بي دي بالي موي كو خامني دفنا ديغا سينيغال گيب خام كو نيب نغندل كو ري كو ليم ديف nga ni baal naa ko. incha allah balaa moo tëjee ma am li ma wax sànq laay répété waat. Mhm. la yàlla dénk pouvoir boo xam ne ku mu bëgg a baal baal la. ku mu bëggu la pexe ba mu ñaan nag moom président mu yolomal. koy ñaan mu yolomal rek. loolu kese la nañ ko ñaan mu yolomal baale jéggale ku ne delluwaat ci sa njaboot parce que moom day baale yenn saa yi nga dégg ñu ne 4 avril bi am na ñun gracier ñu bare gracier mooy lan am na ñu nekkoon ci prison bàyyi nañ ci plus de cinquante personnes noonu muy def nag na ko continuer ba ci ñi nga xam ni xëy na ay borom xam-xam lañ wala ay niti daara lañ wala ay kilifa lañ mu jàpp leen. Hmm. njuumte la ñoom xam nañ ni njuumte la. parce que nag état du jàpp ku deful. Hmm. dañuy fexe ba dañ leen jàppee ñu bañ kaa defaat rek. d' accord en une minute yaa oustaz tey ñëpp la wuy si macha allah suñu mbokku këru diine yi fi nekk tamit ci Tiwaawan Njaasaan murit yi ku nekk teewal na la lan lañ war a mën a jàng ci waxdatul umma bennoo bi nga xamee ne tey ñi la teewal ñëpp wane nañ ko ci diine ji nii diine ji benn la ndax ñi fi teew ñëpp benn kàddu la ñu wax ñun ñëpp alquran lañ fi teewal te oustaz Modou Fall moo ko waral. parce que ñoom dañoo amul ku dul seen wéeruwaay. Hmm. boo fi nekkoon di gita ngas murid yi wala nga len di xas ben murid du fi ñew mhm. bo fi nekkon di laye ni ben laye du fi ñew bo fi nekkon di wax ñese ni non man lima gëm moy pas-pas dafa sensible mhm. nit ku ne fonkal ko kam gëm wegal mhm. ko kam gëm lolu moy deug yow ñepp xam nañ ni am nga kër man li ciow li bari bari bari yépp man da nga naan jàkk rek xam la man même bu ma la waxul man ab tijaan laa man boo ma nee zëmm xool ma xam ni taalibi sëñ Babacar la kon kay jarul ne fii di détail nit ñi xam nañ li nga doon ñeneen ñi ne ci réew mi te bokkub ñoom tariqa ormal leen fonk leen jox leen cër du wàññi ci sa cër dara te fonkel lay dox lay def sa digganteeg ñoom parce que dañuy xam ni mhm. gëm nga sa kilifa waaye gëm nga itam ñoom seen kilifa ormal la te loolu bu ma fekkul woon alaaji Malick santuñu ko sax mm-hmm. ma mën a wax mais alaaji Malick moo ñu sant ni ku ngeen gis te bokkoo leen ak moom tariqa na ngeen ko ormaalal kilifaam macha allah Cheikhu Tidiane Chérif wax ni mm-hmm. mbooleem nitu yàlla yi koo ci gis jox ko ci cëram loolu moo jaadu mm-hmm. te noonu kat la waree ci diggante jullit ñëpp murit Tidiane Laayeen Xaadir ñëpp benn équipe la macha allah looloo waral ko ñëpp nga gis leen gis mourid gis tijaan gis laayeen gis khadir hmm. parce que loolu lañ seq ak ñoom ay relation yu rafet lañu am ak ñoom macha allah faaw jërëjëf di la ñaanalaat di la encourager waat bu baax di ñaan béréb bi yàlla barkel ko ci ko hmm. ndax man mbay sama xarit la su ma sama xarit la nag kenn du ko weddi hmm. dañu bokkoon groupe de presse bu ñu nekk muy télévision futur média ñu nekkin fa nekk bu rafet wax dëgg yàlla mu nekk xaritu ñëpp nag waaw mbay ku ko gis télé ba da nga koy def comme sa bopp mu seqal ñëpp jàmm mm. bureau boo dem amul fenn sens interdit ñëpp bëgg ko ndax wàccee boppam mm. bu àndee Kouthia ànd ak keneen ak keneen la ñëpp la respecté ñëpp la jox cër kon nag ñu ngi koy gërëm bu baax di gërëm mm. waa seen buzz di gërëm waa Sénégal Sénégal buzz deux cent vingt et un set nag foog ma taxaw ci ndax mm-hmm. Pape Ngagne Ndiaye waaw day sama xarit suñu doon waaw soxnaam madame Mbaye mhm. di suñu xarit yàlla boole ñu ak ñoom wax dëgg yàlla ñuy nit ñu baax Pape di kenn ci ñun mhm. di gërëm itam waa A221 mhm. max mi nga xam ne moom itam moom la yàlla jiite eh, dogal mu jiite ko muy suñu xarit di suñu jigéenu bopp ñu bokk Tiwaawan bokk sëñ Babacar